ci yenn kaay yi. ci yenn kaay yi. Elhadji Ousseynou jàmm ci xibaar yéeni yi nga xam ne nag moom la jàpp yoo jàppoon moo faat kooke kooke kay jamono ji yoon daal na koy féexal waaw ki nga xam ne nag moom la teg loxo mooy Aline Badara Fall muy ki nga xam ne faat ki nga xam ne nag moo di Binta Camara ci anam ñaaw yéeni bi di ñu xamal ne kay gannaaw enquête ba kay moom jamono ji nag moom nag nangu na ne moo faat Binta Camara laa waaye nag yemu ca yéeni bi di Sud Quotidien di ñu xam xamale moom kay da koo rey ba pare daanaka jaale ko ndax jamono yii nga xam ne daal yoon ma nga doon def liggéeyam ña ngi ko fekk ci dëj ba waaw mu vox populi di ñu xamale ne nag moo di papay Binta Camara ne daal mooy xale bu jigéen bi nga xam ne dañu koo faat waaw yéeni kaay bi di kay moom Binta Camara kay dañu koo faat fa bañ ba dem réew mi quotidien di ñu xamale kay autopsie yi nga xam ne daal jot naa génn dafay xam ne nag moom Binta Camara moom kenn yëggut ci kawam waaw ak lu mën a xew xeex bu metti daal doxoon na ci digganteem ki nga xam ne nag moo di a Badara Fall mi nga xam ne daal moo ko faat am na yeneen faatu nga xam ne nag moo di Bambey ak Dakar ak xale bu jigéen boo xam moo ko fiir mu daani ñàkk bakkanam yéenekaay moom nag daal di fësal ki nga xam ne nag moo di Aline Badara Fall muy ki nga xam ne nag moo faat ki nga xam ne nag moo di la mu xëyee moo ne boo muy tuut kay jamono ji daal danañu dem ci kanamu attekat xam ne nag moo ne ci fànn gu ni mel la mu ca xam ne moo di moom nag jamono ji nopp ngir wuy ji ci lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu ni mel